Sa Pekes noppi na bu yàgg Sa Sa Pekes teel naa pare daal tolloon nañu tolloon nañu Sa Pekes Brisili le grand reporter rek ñu Seydina Alioune kenn du moom wala ba Seydina <laughs> baa ngi woo ñaari mbëri moo ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ nee leen bu ma siflee bàyyi leen bu kenn doo ci loos bu kenn màtte. bu kenn mbëkkee su ma siflee ngeen taxaw est-ce que di ngeen may dégg ñu ne ko waaw kenn xamul mbokk yi xoolal Laye Bruxelles tàllal na ko ñaari loxo ya Laye Bruxelles saa pekkees Laye Bruxelles à droite saa pekkees à gauche mbokk yi il est 19h44 stade Ngalandou journée Ama production. Ama Dia def na affaire maa ngi nuyu doomu ndeyam Amet du nuyu Kanji Kanji production waaye daa daw léegi tëggatul làmb Kanji léegi amateur la sa Pekes laay brusuli ñoom ñaar laay brusuli teg na pied droite sa Pekes teg pied gauche laay brusuli teg na lewaatoo bi sa Pekes mépp na léegi waaye demul kan moo njëkk a dem wala kan moo njëkk a dóor laay Bruce daa mel ni ku bëgg a dem waaye boo demee loo fay fekk saa pekkees mi ma gis saa pekkees dem na saa pekkees laay Bruce saa pekkees daw na xeex bi daw na jàppante eh, laay Bruce dóor na léegi saa pekkees taxawal na ko day daanu day daanu loo laay birisili laay birisili laay birisili kaay laay kaay laay birisili daan laay lii lan la. dama ko mën fii ku fi la mën. mbër bu jantal bàyyi. félicitations li ñuy liggéey xajul bu jantal bi. mu ngi dama kontaan dama kontaan. Omar waaye naka nga bëreeg moom. Ousseyn. bee passé dama ñëwoon. dama ko cokkaas kaw. mu daw songu ma longal. longal sama yëf la. ah duma la sax fen dama koo jaxabal mbër bu jàndal baa ngi dama mën a bëree. ne woon nga fii lépp gi dootuñu fi fubal. day taa. barki Maama su jàng lii. léegi ñan ñoo ci des. sant yàlla. gërëm Kër Mbaye Fall yëpp. Thier fay. Babacar Sarr. l'international bi. Bokar Ndiaye Pabis. ama vétéran yi du ma tudd kenn vétéran yi sama waa koñ jàppale nañ ma quoi ay lëz sama doomu day dil samay kottu dañ ma doon teg lu maa leen di bëggee ñëpp écurie bi sama doomu nday Laye Bruce Junior ñoom Thio boo yëpp maa di bëggee di ñaanal suba yàlla may ko ndam. fëgale bu ngor dafa mën a fecc dama koy aj ba ci kaw <laughs> maa ko ma la sax fen nañu ñu bëree gaa dañ ma jël non buñ ma jëlee dégg lu nooyi ah ma ne la dama fere ba yàqu di saw me di day yàpp juddu timis fer gee jongu samedi wër dimanche nee naa ko bu ma dawee ñogoni di ñin kii ku yaayam lii gëj gise bi nag waaw gëj gise bi may naa la ko sànq Ousseyn jël ma jël ma bëgg maas jeer naa leen